dina ñëw xalaat nga ne il est intéressé parce que gis naa ñoñam yi ñu ngi organiser ah, man de wax dëgg yàlla bu ma nekkoon place am 2019 bi n'était de su ma nekkoon place am. Hmm. du ma ñëw. lu tax mu fi wut. ah dul wut. il a un héritage de son père ah, l'héritage du ah, ko ko jaralee mu def ko waaye man bu ma doon mooma bu deful campagne man lay man xëy na du moom hmm. waaye Karim Wade daal bu ma doon nekkoon palaasam hmm. jàmm jama yàlla may Doha du ma ko fa bàyyi di ñëw Sénégal fi ñu may saaga ak di ma xas di ma wax lu ma wërta wax ak di ma dëkkal néeg yu ma dëkkul duma ko def lan moo ko booleeg Sénégal fi mu toll nii Karim Wade tey amu fi ñu jaay amu fi maam bu fi nekk bu fi lu ko booleeg Sénégal mooy bu fi ñuy fleurir la tombe de sa femme man de bu la ma naa ñëw vacances Sénégal di fleurir la tombe de mon époux di ko ñaanal waaye toog fii naan damay laaj président de la République du sama xel mu gàtt bu ma ko woon def ma nekkoon place am néew ma du ko def xëy na bu ko defee bu ko jaralee mu def ko bu ko jaralee bu ko jaralee xam nga ku nekk nit léeg-léeg nit ki dina bëgg alkandeem dina bëgg lu koy sonal nit dafa bëgg lu koy fitnaal xëy na loolu dina tax ba mu Karim Wade toog fii laaj senegal waaye man de bu ma nekkoon wax dëgg yàlla bu ma nekkoon place am dinaa tal leneen dul nekk fii damay xëccoo Sénégal gisuma aujourd'hui lu ko Sénégal mën a indil lu amul ba pare te gisuma ax dëgg yàlla mu def fi la nga xam ne beneen Sénégal mënu ko fee def gisuma ko honnêtement maintenant mën na am ñu ko ñu farag moom. ànd ak moom nga ne gisuloo Karim Wade def fi loo xam ne beneen sénégalais mënu ko fee def. mais tu sais euh, Madiambal avec le avec le recul on que Karim a eu raison sur beaucoup de ko comme quoi. quand il portait les grands travaux là. Hmm. mbamb bi topp ko. Euh, Karim grand travaux yi mu fi porté dafa gën dafa ëpp grand travaux yi. waaw mais waaw mais waaw mais fi mu amee raison mooy dañ doon wax naan à l'époque c'était des gouffres à sous Macky Sall ñëw. continuer euh, même trajectoire bi euh, de réalisation de de de, de grands travaux euh, Karim Wade Karim Wade plan tàkkal bii nga xam ne moom moo moom moo permettre ñu ñu ñu am tey euh, moom moo ñëw ba ci li ñu am tey ci énergie tamit ah Abdoulaye Wade moo tax fii devant les Sénégalais non non il faut aussi qu'on qu'on restitue l'histoire Abdoulaye Wade moo taxaw fii devant les Sénégalais mu ni mes éléphants blancs ont pris des couleurs avec Macky Sall d'accord kon c'est avec Macky Sall que ces projets ont été réalisés plan tàkkal boobu c'était la pire catastrophe du Sénégal. bi ñu ñëwee rejeté wu ñu yëpp. non non non si ils l'ont rejeté ils l'ont ils autre chose. bi gars yi ñëwee rejeté wu ñu yëpp. non du plan tàkkal. utilisé nañ ko pour lancer la révolution énergétique. non non non li fi bàyyi moo di un taux de quatre-vingt-seize jours de délestage électrique. il faut réviser l'histoire aussi en 2013 ce taux a été ramené à moins de 48 heures ou 24 heures parce que le gouvernement du Sénégal a changé le, euh, de stratégie à l'époque c'était pas bien le DG de la Sénélec et je crois que Aly Ngouille Mby de euh, le président Macky Sall qui a été ministre de l'énergie et peut-être qui avait une connaissance de avait fait de l'électricité une priorité. C'est comme ça que le Sénégal a réglé la question des délestages. Mais la fi Karim Wade bàyyi woon moom bay Sénégal la woon. C'est que parfois aussi on a tendance à embellir des situations. Non, c'est pas